wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant asayxul xadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaaw yi nga xam ni ñoo wuutu mag ñi fu fi mën a nekk ci réew mi mbokk yi dellusiwaat nañ ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bu mag bi di Mouride TV ba tey rek ñu ngi ci tëbaski mbokk yi ak li nga xamante ni ci aju kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci benn hadis boo xam abi ayubu al Ansari yi radiallahu anhu moo ko waxoon mu ni kaana rajulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam men dafa am benn waay boo xam ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa jooju lay daan ben benn gàtt waaye gàtt boobu nga xamante ni moom la daan da ko daan defaale ak ñi nga xamante ni ñooy ay waa këram hadis boobu Tirmisi yi moo ko solo waaye daf koo wéral kon lan la ñuy dégg ci hadis boobu mooy kon ndekete ki nga xamante ni mooy boroom kër gi mën naa jënd menn xar menn xar moom su ko jëndee mu daal di koy rey ci bis bi nga xamante ni mooy bisu tabaski bi yéene ci boppam waaye yéene waaleel ci mboolem njaboot gi ak ñi nga xamante ni ñooy waa kër gi yépp mu yéene waale ci ci li nga xamante ni mooy tabaski boobu te boobaa kenn ku nekk ñoom dina am yool bi nga xamante ni mooy yoolu tabaski su defee nag dañ laa waxoon ne la tabaski sunna la waaye sunna la soo xamante ni ci képp koo xamante ni man na ko day nekk sunna soo xamante ni su war la ci yow su ko defee nag ki ko man euh, boroom xam-xam yi boo demee ci risaala bu ibnu abi zeydin alxarawaan yi ibnu ajib day wax ci saru risaala boobu di wax ni wal mustati man la yaataaju ila samaniha fi hamihi nee na ki ko man mooy amul yitte amul soxla amul aajo ci li nga xamante ni mooy njëg gi nga xamante ni moom lay jënde xar mi ci li nga xamante ni mooy at mi mbokk yi kon nag loolu day mel ni buñ ko seetee day mel ni kon ñi ëpp ci ñun day mel ni duñ ko man ndax sama kalaas gi ñëpp daal li njëg gi nga xamante ni moom la ñuy jëndi xar mi waxuma la ci bis bi nga xamante ni moom la ñu tëbaskee sax balaa bis bee dellusiwaat su boobaa dinañ aajowoo njëg gi nga xamante ni moom lañ jëndi xar mi kon loolu lan lay tegtale mooy kon tabaski mbokk yi nekk de sunna la waaye sunna la soo xamante ni dañ su fàttaliku la muy su su war la ci képp koo xamante ni ab jullit bu ko man la moo xam muy góor moo xam muy jigéen moo xam muy ndaw waaye ki ko man nag mooy kan nee na mooy ki nga xamante ni du aajowoo li nga xamante ni mooy njëg gi ci at mi yëpp te buñ doon xool réew mi mbokk yi 60 euh, pour cent yëpp mën ñoo wax ni képp koo xamante ni génne nga loo jënd am xar balaa bis bi nga ko jëndee woon dellusiwaat su boobaa di nga ko yittewoo kon daanaka jar nag jenn fër-fër ju métti yi ak yenn coono yu bari yi du ko jar kon loolu moo bàyyi xel la mbokk kon xam naa foofu la ñuy taxaw lu ci yóbbal bi jox leen dig da incha allahu taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoudane Ndiaye loon fii ci Touba li gën ci noonu yàlla ngi suñu borom defal te dëppale ko li ñu gënal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa